matinal Allô Sénégal il est 9h passé de 32 minutes la destination c'est à 10h ma dalal Keina namoon naa ko lool ci plateau bi Keina maa ngi lay nuyu. maa la raw nii déwénati baal ma àq. man laa man maa la war a baalu Aïcha baal ma àq sonal naa la. bàyyi woo <laughs> kii déwén bàyyi nga am jàmm. waaw hmm. surtout kii tamit faa mu baalu ko àq Pape Malick. boo hmm. sonal baal ma àq baal Kajoor baal leen ma Amadou baal leen donc euh, yàlla boole ñu baal di leen baalu ak téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers le monde entier di leen jaajëfal bu baax a baax j'espère que vous avez passé une très belle fête mm. quant à moi Aïcha c'était super merci beaucoup Keyna maa man naan merci sax dalal ak jàmm. alors ñuy ñëw léegi léegi ànd ak Amadou ci rubrique bi nga xamante ni moom la ñu duppee avocat. Mm-hmm. Amadou tey euh, lan la ñuy waxtaanee. waaw li nga xam ne moom mooy la fiscalité maanaam la politique fiscale bi nga xam ne régime bu bees bi teg na nga xam dafay insister baax a baax ci li nga xam ne moom mooy moom mooy la fiscalité donc question bi ñu bi ñuy laajte maanaam donc ban impact lay am ci li nga xam ne mooy l' environnement des affaires fii ci fii ci Sénégal donc ñu dalloon ci ki nga xam ne moom mooy Saliou Dieye nekk expert fiscal mais président de l'ordre des experts du Sénégal pour mu ñëw ci point bi ni mel maanaam li nga xam ne moom mooy la politique fiscale du nouveau régime mais aussi ban impact lay am ci li nga xam ne mooy l'environnement des affaires au Sénégal donc ñu déglu mooy mooy <laughs> ñu bàyyi Saliou Dieye kon mu ñëw mais fiscalité bi ñuy insister mi ngi fi woon mosu fi jóge alors euh, du lu bees mais aujourd'hui su fekkee en fait nit dafa ñëw Euh, nekk en fait inspecteur des impôts effectivement ses préoccupations moom mooy les impôts soo xoolee ci budget état bi euh, poste en fait de recette ressources yi euh, on a les impôts et taxes dañu am également en fait les droits de tirage uh-huh. ak ce qu'on en fait de l'exploitation en fait minière en fait pétrolière et gazière mais ressources yi demeewul noonu uh-huh. donc euh, de tirage yi mooy endettement bi il faudrait pas ñu abuser ñi ngi abuser donc recette fiscale yi la ñu am vraiment en fait pour développer en fait euh, l'activité économique mais dañu gis ne on n'a pas beaucoup de contribuables on a 17 millions en fait d'habitants en fait au Sénégal mais tu n'as pas un million de contribuables même pas un million de contribuables même pas un million de contribuables tu as en fait à peu près 300 000 350 personnes qui sont en fait au niveau de la fonction publique tu as dans le secteur privé à peu près 300 après une 100 000 contribuables ah jeex na te 100 000 contribuables yooyu pratiquement ce sont les grandes entreprises ñoom ñoo koy mais oui secteur secteur pas secteur informel en fait les gens n'ont pas de boulot pour pouvoir en fait supporter des impôts. mi ngi ni ngi noonu Saliou Saliou Dieye nga xam ne expert fiscal la mais aussi le président de l'ordre des experts du Sénégal donc mi ngi ñëwaat un peu fiscalité bi nga xam ne euh, nouveau régime bi moom la jël nee na c'est-à-dire une lame à double tranchant cest benn côté bi mën na baax ci li nga xam ne moom mooy budget de l'État mais aussi de l'autre côté aussi mën na andi ay problèmes yu bari bari fii ci Sénégal surtout boo xoolee Sénégal ñi nga xam ne moom la bindoo nga xam dafa bari trop ay petites et moyennes entreprises donc la na leen mën na leen plomber bu baax a baax baax kii nag alors man membre d'exonération fiscale bi euh, dafa bari te loolu je pense wàññi budget bi. aussi je pense que loolu aussi war nañ ci dox bu baax a baax maanaam exonération yi loolu dafay wàññi li nga xam ne moom mooy budget bi c'est-à-dire bu ñu ut manne financière donc je pense que mën nañu dem ci li nga xam ne moom mooy exonération parce que depuis 2012 ba 2022 maanaam ci 10 ans yi nga xam ne moom la ñu mujjee jàll je pense que état du Sénégal donc perte na ci loolu ci milliards ci li nga xam ne moom mooy xaalis ci exonération fiscale donc. exonération fiscale yi nag état bi daf koy def ci yenn secteurs yi donc pour permettre secteurs yooyu ñu mën a donc am na quelques secteurs yoo xam ne mën nañ ko ci jël comme lu mel ni la cimenterie secteur la lu mel ni pêche bi agro industrie

xam nga ni que faaw mu faaw faaw ñu laal la presse. Mm-hmm. parce que fan yii yaakaar naa ne actualité la. Mm-hmm. Euh, naka la demee entre la presse ak li nga xam ne moom mooy Sall dinaa ko bàyyi sax mu ñëw ci mu ñëw ci dire de de des je pense que am na ci am nañ ci responsabilité parce que bu fekkee li nga xam ne moom mooy administration fiscale bu fekkee ne euh, presse dañoo bàyyi ba seen fisc yi toll fii parce que c' est parce que administration fiscale liggéeyul mais aussi la presse aussi dafa soxla vraiment. moom accompagnement même si moom mooy réforme parce que je pense que ni nga xam ne moom la ñu fiscalité yi bu fekkee ne dañ koy respecter à chaque fois dafay nekk lu métti parce que genre maa ngi koy Sénégal dafa bëri petite et entreprise te bu fekkee ne fiscalité répressive la teg donc dafay plomber vraiment entreprise yu bëri donc ñu bàyyiwaat salu mu ñëw ci point boobu non les de la presse c'est comme toutes les entreprises il ce que l'on appelle waroo fay impôt waroo fay impôt. mais si tu as des difficultés dañ ko waxtaanee au moins. non non non parce qu'il a des employés qui sont derrière. non non amul waxtaan. c'est que aujourd'hui ce qu'il doit faire. Mhm. c'est nga dem déclarer. si tu un problème mais si tu te soo ñëwee dëkk c'est des gens nag en fait qui sont très intelligents hein. Mhm. ils pas bêtes et ci dëkk bi lañ dëkk. c'est des gens yoo xam ne le soir yéenay toogandoo yéenay reerandoo yéenay naandoo ataaya. soo ñëwee xam nañ ñu mu demee. ñëwoo toog ne ils ont un problème. mais yéen vous avez en fait aujourd'hui lu ngeen bëgg jàlle jàllale ci information du ngeen ko jàllale ci information mais les informations que vous passer par rapport à ATD non ça ne fait que créer des problèmes les personnes qui sont jugées en fait les impôts sont individuels mënuloo mhm. regroupé yëpp dem di négocier et ku leen promettre ne da leen effacer en fait la loi fiscale da leen di ndax fût-il même un président c'est pas possible le budget est voté au niveau de le président Macky Sall mais mënul nekk xamu nu mu ko defee mais aujourd'hui ce qu'il faut faire le budget est voté à l'Assemblée nationale ce sont les ce sont les députés qui peuvent voter une amnistie fiscale keneen mënu ko voter c'est pas possible maintenant l'administration peut recevoir des instructions pour examiner des situations individuelles pas en fait des situations globales parce que suñu ko defee demain mais les commerçants vont sortir pour dire amnistie fiscale donc les personnes en fait qui sont en cause dañu war a dem au niveau de l' fiscale dem seeti seen chef de centre seen chef de bureau de recouvrement discuter ñoom ñu ne écouter nii parce que c' des gens qui réfléchissent. su ngeen discuter ak ñoom déjà en fait ils peuvent lever le pied en attendant en fait les actes yi ngeen di mais effort fiscal bi fais l' effort si tu fais l' effort fiscal bon on sait qu'il y a beaucoup mi ngi ñëwaat li nga xam ne moom mooy la fiscalité et. ce sont des entreprises comme mhm. yëpp entreprises yëpp c'est-à-dire war nañ leen vraiment donc war a payer loolu li nga xam ne moom mooy moom mooy impôt parce que impôt dafay dafay permettre vraiment mu dem ci budget bi te après ça revient à la à la population mais nag je pense que ne am na vraiment yi nga xam ne war nañ ko mën a teg mais aussi ñu waxtaane vraiment de telle mhm. sorte que du ñu mën a plomber li nga xam ne moom mooy les entreprises nañ ñu baal rek presse bi moom <laughs> nañ ñu baalal fiscalité bi moom ñun gumb tal na leneen lu dul jéggi kàmm nag loolu rek laaj ci am ko nañ ñu baalal rek. c'est alors que entreprise de presse ñun service public la ñuy def et puis lu donc kooku mënuloo ko comparer ak soo comparé loolu donc loolu tax bon war nañu am par rapport ak yeneen. Mhm. je dis pas que ñu a fay impôt. dañu war a fekkee da nga bëgg focaliser wu see. discrimination positive euh, ci entreprise la que voilà dafa war a fay good ko good au détriment yeneen entreprise yi bon tu fais. di da ngay guure wu parce que entreprise de presse nekkul dafay def cent pour cent. commerce euh, cent pour cent mhm.

l'IR c'est-à-dire impôt sur sur les revenus donc yooyu noonu tamit ay ay manne financière la yoo xam ne vraiment l'administration fiscale mën na ko mën na ko jël donc je pense que ci loolu la ñu war dem maanaam le secteur informel mais aussi li nga xam ne moom mooy les salaires. loolu xamul mhm. xamuñu te lu bari. <laughs> liñ ci xam rek mooy dañoo war a fay impôt da ngay romb sax ñu naan la eh yéen baa fay ngeen impôt man sénégalais yi jaaxal nañ ma daal dina ci traversé. <laughs> dina

ñëw dikkaat ci plateau bi.